internet yi dalee nag jàmm aji Sarr bu Sweet Beauté Adji Sarr mi nga xamante ni nag moo daal di jiñoon Ousmane Sonko nee daf ko daal di nag violé ca salon de massage Sweet Beauté nekkee nag ca fële nga xam ne moom mooy ca Sacré Cœur ca cité góor gi moom Adji Sarr nag la ñu ne dañu ko daal di nag gis ca cité mixta ginnaaw bi nga xamee ne nag police daal nañu def benn rafle di nag patrouille foofee nag ci cité mixta nga nekkee nag ca wetu nag Yoff ci lañu daal di nag ramasse xam ne moom mooy aji Rabi Sarr waaye nag bi ñu ko daal di ramasse dañu ko daal di nag fekk mu taxaw te yorul nag benn pièce bi ko policiers yi daal di laajee nag ana yi nga xamante ni nag mooy sa carte d'identité mu nekk fa di di di daal di koy jël yóbbu ko ca commissariat ba ñu ko yóbbu itam ca commissariat daanaka ci nag ñaari waxtu yoo xamante ni nag toog na fa ñu koy daal di nag téye ci li ñuy daal di duppee garde à vue moom mi nga xamante ni nag moom mooy Adji Sarr boobaak léegi nit yi sax ñoo ngi daal di nag euh, laajte moom fan la daal di nag féete xam woon fu mu nekk ndax nag euh, moom Adji Sarr nag nee ñu sax ci euh, quatre heures du matin lañ ko daal di bàyyi nag mu daal di nag génn waaye nag moom mi nga xamante ni nag moom mooy jamono ji mu nag ci ab dossier goo xamante ni moom Ousmane Sonko ñoo ko daal di nag séq ñeel mbirum nag viol ak menace de mort goo xam ne moom Adji Sarr daal di porter plainte ànd ak avocat ñu daal daal di nag bëgg ñu def justice ci kanam ki nga xam ne mooy njiital Pastef Ousmane Sonko moom Adji Raby Sarr nag euh, fàttali ne rek ne gëjoon nañ ko sax gis mu génn nag ci média yi fépp waaye nag ci qualité bi nga xam ne moom ñu daal di génn itam gis nañ ko mu daal di publier benn vidéo di snap ba jekk di snap mel ni kuy pare ñaan déwénal te moom mi nga xamante ni nag daanaka euh, coow li fi amoon ci mois de mars gi ñu génn yëpp amoon ci lu toll nag ci euh, quatorze doomi aadama yoo xam ne jotoon nañ ci ñàkk seen bakkan ci manifestation yi lé lii lépp nag moom Adji Sarr daanaka nag mel na ni ku ko fàtte moo tax muy génn bay du dem ba ca cité mixta ba ñu ko fay daal di rama cité mixta itam nekk sax ab bërëb boo xam ne daanaka ñi ko nawloo bëriwul ndax naam sax am ñu fa dëkk waaye nag saay su ne yenn scandale ñuy dégg dégg ci dëkk bi ci wàllu nag sex tape nag fa lañ koy daal di nag déggee lu ci mel ni nag ay góor jigéen wala ay lesbiennes yu fay dajaloo wala ay góor ak jigéen xale nekk ay adolescent dajaloo fa di amal ay lomotif ak yu demee noonu moo tax nag daanaka euh, xel tey na lool ci moom mi nga xamante ni nag euh, moom mooy nag accusatrice ci mbirum Sonko Adji Sarr mi ne ñu gis ko foofee nag ci bërëb boobule neem bu fekkente ne sax fekkuñu ko ci anam benn anam boo xam ne dafa doy waar wante naa bu ñu sukkandikoo ci site bii di limametti point com ne ñu carte d'identité boo xam ne yoru ko woon moo tax ñu daal di koy nag ramas yóbbu ko ci yaa